Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Internet Youssef Football TV ñu ñaan leen bu baax baax eh, ziar leen tay na dañu ñëw wax ci Alou Cissé parce que ñu bari ñu ma ci xaar ma wax eh, sama xalaat ñu bari ñu naan Alou Cissé est ce que dañ ko wara téé fi bala Coupe d'Afrique dañ ko wara dakh dañ wara andi Omar Daf dañ wara andi Habib Bey wala Youssouf Dabou bari na ay joueur entraîneur yu xamanteni ñu ngi leen wax wala sax Renard amna ñu bari ñu xamanteni ci commentaire dañ koy lire wala ci réseaux sociaux ñu koy wax ñeneen naan tactiquement dafa dafa dess je pense eh, que lool moy point bi nak tactiquement suñu coach dafa dess te bu fekkon entraîneur bu xamanteni mo ngi soo ko yor équipe nationale dañu naan waaw garaaw nañ ko bàyyi mu liggéey mais 6 ans aussi tamit franchement 6 ans alucisé il faut ñu wax ak yow eh, mooy li may waxaat alucisé bëggul changement moo tax à chaque fois alucisé du bëgg di di changer système wala du bañ a woo Sadio Mané wala di bañ a woo Idrissa gane parce que xam na ne bu tegul ñooñu rek bu ñàkkee rek gars yi dañuy dal si kawam parce que moom résultat am en général moo ko fi gën a téye parce que du football bu rafet parce que 6 ans moo ngi fi mais fàttali ko équipe man pour man équipe 2017 ça monte tax coupe d'Afrique 2017 parce que franchement football bi euh, c'était bien huilé ak ñom Karim Mbodj ak ñoom euh, Pape Koul Diop parce que man euh, compétition boobu kontaanoon naa si trop quoi jeu bi mu fi won kayta Baldé mu non soog ñëw xam feu et flamme donc après c'est compliqué qualifié nañ fi coupe d'Afrique coupe d'Afrique bi dem nañ final mais mëno fatel pour parce que équipe ak luñ mën ti wax tàcc nañ ko ci suñu ñaari loxo man première mais quand même équipe ñu dajé c'était pas Côte d'Ivoire du équipe yi gëna mak aussi tamit Algérie ñëw japp ñu deux fois est que problème alu si bi gëna ngand instant xalé yu tuddi ja bo len laaj ñu wax la ke bloc ba bu ma bo dey ak bloc ba du du dem fenn xam mu nek ben équation bu xamantene ba tay alu si se mën ko trouver tactiquement ba tay dafa dess moy limay wax motax à chaque fois buñ ma waxé abibey buñ ma waxé yusuf dab wala yu démé non du ma ci xaw d'accord quoi parce que man luma soxlé entraîneur bu rampé je me rappelle bu fi ñëw man d'accord mon ci Aliou Cissé ñu sénégal yi bëri doon ci andon quoi vu que mo nekkon suñu capitaine eh, rayanté wax ak boy né boy bu leen ñu fonto duggaleen ci fi ngeen sul maam ngeen rayanté parce que sénégal yi bëri la ñoon xaar parce que ñu gis Aliou Cissé full fayda bak yoy lañ ñoon wax mais kenn waxu la won tactiquement kenn waxu la won xam xamam ci football Karim Seck Séga Diouf la daan àndal yal na ko yàlla yërëm si si euh, Jeux olympiques bi kooku moo yoroon teg côté tactique technique mais Aliou Cissé boo laaj la la daan wax xadar yooyu la la daan wax maintenant 6 ans moo ngi fii du kes du tactique du euh, parce entre man fàtteeku ma Aliou Cissé benn match Sénégal bu xamante ne mu def benn coaching tak gagnant wala comme maanaam tey ñu ñu tegal ko benn équation trouver ko mu ne mu def changement ki mu dugal def différence maanaam te bu fekkee mënoo trouver loolu contre estuatine bu fekkee da nga dee équipe bu mag dañ la koy nangul parce que boo fàttale ko boo leen fàttali ñi di seen football bu baax gis ngeen ngi fàttali ko inter bu mu fi eh, Barcelone camp nu mu ñëw nekkoon entraîneur bi ba ñu ruus Thiago Mota eh, Samuel Eto'o dem nekk latéral boobu nag équipe bu mag la équipe bu mag bu la defalee bloc bas c' très difficile loolu Guardiola sax admettre na mais bu fekkee équipe bu ndaw moo la defal équation day yàgg rek di nga day yàgg rek parce que ñoo ngi seen football ñoo ñoo ngi seen Manchester City Barcelona bu ñu tolloo gis nañu équipe bi ñu daan def bloc bas entraîneur yi trouvé solution bu ñu trouvé lu woon solution gars yi seet seet la leen keneen parce que ñoom ñoo ëpp doole c'est normal ñun nag ñoo ëpp doole mënoo am instant yi Edouard Mendy mu bokk si gardien yi gën a aay nga am Kalidou Koulibaly dañuy xam loolu répétition sax lay doon nga am am xam nga liste am bii day lay finir xool liste bii moo mu woo 31 jours et pourtant des na ay jours yu bëri yu xamante ne saa waay 30 rek lañu 30 rek lañu sans compter bi nas noy donc Aliou Cissé instant li mu yor si si si si ay jours kenn yoru ko loolu moo tax sénégalais yi euh, di kaas donc ndax man nag li ma gis mooy que ñu bàyyi ko ba coupe d'Afrique bi coupe d'Afrique gis nga bu demee gañewul ñu daax ko bu demee bu final sax ñu changé beneen entraîneur parce que tamit mënoo fi nekk 6 ans tactiquement mënoo génn dara tactiquement mënoo génn dara mënoo mënoo mënoo am stylisé mënoo am identisé mënoo wax ne Aliou Cissé lii nii man nag match yoon démb loolu système bu beneen système la même système bi fa nekkoon daan nañu gagné c'est que ñoom ñoo ngi gagné de ñoo ngi gagné ñoo ngi dem coupe du monde ñoo ngi ko mais jeu bi ça laisse à désirer je pensais que boobu noonu gis naa ne tactiquement 4-4-2 bu mu tegoon mu tegoon euh, Alfred Gomis Alfred Ndiaye plutôt ak euh, Gana Gueye euh, mu teg Sadio Mané si côté bi teg teg Ismaïla Sarr teg ñaari attaquant Mbaye Niang ak Mame Abdoulaye Diouf équipe boobu c'était tactiquement franchement gars yi ñu taxaw même si fii terrain Afrique yi moom da ngay ree tas yenn jeux moom noonu fi joué xam bu ñu waxee ne dëgg donc Aliou c'est ça le problème ñi ko doon ñi je pense que ñi ñi àndoon ak moom ñëpp si télé yi sax àndatuñu ak moom njëgi dañuy dañuy xaw a rafet dañ naan comprendre ñu ay choix euh, dañuy match bi dem yaa ngi gis Krépin Diatta day dem fii dem dëkk dem fii jég saa mu dem fële mu jël Cima teg Cima kan du joué si moom bal bi tam ñu jël di joué si Fodé Ballo-Touré finalement ñu fàtte Cima euh, mu dugal Keita Baldé ñu ne Keita Baldé si côté ñëpp gis ko si axe bi jaxasoo finalement deux défenseurs ab li ñu mën wax ci tellement bari moo même avant avant avant mm, muy def l'islam bi mu defee l'islam ba pare gis ngeen ne amul lettral droit parce que sabali la woon wootul sa sabali dem waa bëddoo téeka du woon non non afa wala yeneen boy wala je sais pas moi fa jonkoom fi keneen ak keneen lettral droit yi moom duñ jeex xam wala capitaine bu bu tëgg FCN defoo loolu masi bi woon démb nga jël attaque ko xamante attaquant la eh, Momadou Fall nga dem teg ko on n'a pas compris nga génne ar kii euh, nga génne Fodé Ballo-Touré foofu Arial Mendy a tax nga koy convoqué mais bu demee day ñibbiwaat euh, du du football dem dafa sonn mais dugal latéral gauche wala nga tegal Abdoulaye Ndour tam latéral mais tu préfères jël attaquant euh, na tudd sa dugal attaquant la nga jël nga teg ko latéral nga jëm jël Krépin Diatta yow Krépin Diatta di football fu nekk si terrain finalement ménage jaxase. aussi de bataille même système avant système bi sax même système bi fi nekkoon mom amul ki euh, mom lien entre l'attaque et le milieu ki da daka am hmm, Aliou Cissé ba suñu suñu milieu mën ñu trouver suñu attaquant ba suñu attaquant am ay occasion Mbaye euh Mame Baba cham Famara Diédhiou képp koo fa tek dara kep ko fa tek dara gis nañ contre Maroc kep ko fa tek dara donc Aliou Cissé euh, deux mois yi di ñew bu ñu toogee deux mois après dañuy éliminatoire coupe du monde la ce sera très difficile donc équipe yi bu bloc baa la ñuy def donc ñun moom nañu xaar exploit euh, Sadio Mané man moom fa laa ko wékk tant que maa ngi gis Sadio Mané sama xel dina dal Ismaïla Sarr ñu bëri gis nañ njëriñam dem parce que li mu fa nekkul ñu bëri ñoo ngi commencé gis njëriñam man yàgg naa ko wax ne leen dina andi ay faute dina percuter parce que ñun Sénégal boo xoolee suñu joueurs yi amul joueur bu xamante ne day perturber défense maanaam un joueur comme Sadio Mané bare ñu ko boo xoolee suñu joueurs yi Kayta Baldé moo fa mel noonu ces temps yi c'est un peu compliqué Keita Baldé Ismaël Sarr moo fa mel noonu ak Sadio Mané mais yeneen joueurs yi certes am na ñu ko man de mën nañu ko de mais comme Sadio Mané ni mu ko mënee gars yi mënewuñu ko noonu quoi parce que c'est normal aussi parce que Sadio Mané joueur classe mondiale Liverpool la nekk et tout donc du ñu wax Sadio Mané ay qualité mais bon en tout cas daal lii lañ mën a wax si Aliou Cissé man daal leen laay xaar nañ ko may ba Coupe d'Afrique bu Coupe d'Afrique bu fekkee gañew ko mu aal ñu te man dama jàpp dañuy gagné coupe d'Afrique ak lu ñu mën a wax Aliou Cissé man dama ko gëm xaw ma la je sais pas pourquoi mais dama gëm ne Camerounais il faut que ñu fekk leen seen dëkk gagné andi coupe d'Afrique bi fii ci réew mi je pense que Aliou Cissé loolu la mën a def Sénégal yi d'accord mais bu fekkee def na fi leneen je pense que ñu bëri ñoo bëgg ñu andi yeneen entraîneurs yu bees donc ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis di leen jaajëfal di leen wax ba